seen chaîne bi di Diawfal Fara li ko tax a jóg mooy xamle sëriñ bi xamle it njàngaleem sëriñ bi bu ngeen bëggee abonné ci Diawfal Fara dem leen YouTube ngeen bind Diawfal Fara bu ko defee ngeen daal di bës cloche bi Diawfal Fara ñooy ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachiru mu yàgg fii lool te ànd ak a aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala sallama ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi jullit yi rawatina mbokki taalibe yi jàkkaarloo ñun ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di ndokkeel jullit yépp ci at mu bees mii ni door a tàbbi di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi muy atum 1442 di ñaan yalla suñu borom yaxan dara tëwu ko mu jéggal nu sunu mboolem ay rëcc rëcc te jële fi mboolem gàllankoor yépp suñu borom jeexal ko mooy profité di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi maulana cheikh mamadul muntaha mbakke xalif général de mourid mi nga xam ne moom la suñu borom teg tey ci bopp njabootuk cheikhuna cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul ñu di ko sagoo di ko ñaanal suñu borom kartan dëpp ko kartan defal ko feex ak sutura banal yi nga xamne nalal nako mamam ju bax ca Cheikh Ahmadou Bamba ta moy naali l'islam yalla na suñu borom dimbul ko banal yep egg banal ya yi mag ñako jitu won defo nañ ko mu eggale naal yep yalla man na yalla nako na def daraje yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam Cheikh Bamba di tekki nuyo bi ki nga xamne mo sak won ti ci ñun jotaay bi tay ji ci ak bëggam lu bax ak farlom ak mana a morum mag ñu bax ni moy Cheikh Abdou Samad Mbacké mom Serigne Souhaïbou mo sak won ci ñun tay jotaay bi ñu fas yéene ko amal di ñaan suñu borom defal na tawfeex bañ man koo def ni ñu ko bëggee barkeb Serigne Touba. mu mel ne it dafa sàkk woon ci ñu teew fii tey jii jataay bii jéem a leeral Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lenn ci fi ko sunu borom jaarale ba mu agsi fi tey ndax sunu borom tabaaraka wa taala daf di def jamono bu nekk képp ku muy yabal. daf lay programé ci anam yépp programé la ci ay jikko yu rafet waaye ay jikko yu rafet yo xamanteni ni jikko yu tan lay don waaye programé la tam ci aw askan bo xamanteni duñ am lenn luñ cee xébet Serigne ñabdu sama nak sak won ci ñu léral Cheikh Ahmad Bamba fi ko sun borom jaarale ci walu askan bam egsi Cheikh Ahmadou Bamba nag mi ngi gane jamono ci Mbàkke Bawal ci atum mille deux cent soixante dix wala mille deux cent soixante douze junni atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi ne ñaar té at ñi atum ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñi ne atum ñaar ak juróom-ñaar fukk mille deux cent soixante dix ak soixante douze lu ci ne am na ay bindkat yu mag yu ko bind waaye li ci am solo Cheikh Ahmad Bamba mi ngi a jamono ci Mbàkke Bawal ci diggante yaari wayjur yu sell yoo xamante ne nii kenn mësta dégg seeni askan ci lenn dul lu baax Cheikh Mamadul Bachir di borom xam-xam doomu Cheikh Ahmad Bamba di bindikat bu mag wax na ne toppees na ko lu ëpp yett téeméeri at ci ginnaaw wala lu ko jege loo xam ne gisuñ ci lenn lu ay nit ñoo xamante ni ay sëriñ yi fàkk taal lañ yoo xamante ni liñ xamoon mooy jaamu yàlla dund seen wu ñaq mooy dundee lu lew ak jaamu yàlla loolu rek lañ xamante ñoom mooy ay nit ñox mosu ñoo lekk mayaal mosu ñoo lekk ger ci foofu fi la xaadim rasul feeñe mu feeñ ci diggante ñaari wayjur yu sell wayjuram bu jigéen tudd soxna Mariyaama Buso ñu gën ko xam ci soxna jaara Buso ñuy soxna jaaratullah nekk dëkkaaleeb yàlla suñu borom tabaaraka wa taala wayjuram bu góor di sëriñ Mamor Anta Sali سرين مامور أنت سالي ويجرم بغور من يتدو مام حبيب الله بك مام حبيب الله وانا في جن كو خام كي مام بالا عايسة ما تنعي مام أبيب الله مام مارم بك مكجور مام مهرم نك شيخ مود الفادل مام شيخ الخادم دي بنام خام خام مك دف دار وحنه أشكنم بك مام مام مهرم مويشون معدنان مع maanaam saa suñ limee ci maam maaram mën nañoo taxaw donte la ko jiitu lu jag la lu xam la lu nu xereña la ñu nekk ay nit ñoo xamante nii nekkuñu woon ci lu dut lii ma la wax muy jaamu yàlla jàngale alxuraan nangoo dund seenu ñaq loolu rek ci lu nekkoon waaye maam maaram moomu nag ku ñu wax abibullah mbàkke moo ko jur maam maaram mi ngi tudd muhammadu alxayri muhammadul xayri la tudd waye ndayam dafa tudd aram ñang motax wala fi nan ko mam mam maharam muhammadu mam aram bam yag ñaan mam maharam waye mamadul khairi la tudd mamadul Khairi mom doomi abibullah la abibullah mom mom la tudde mam bala isa mirim ciatam abibullah mom kuñ wax mamadul kabir moko jur mamadul xay kabir mag mañ tudde mam maram mamadul kabir kuñ wax zaid moko jur zaid kuñ wax usman moko jur usman mom nak la ay maamam jóge woon ay maamam ñëwoon fii ci biir réew mi jóge Fuuta ñëw fi nga mën koo lim ba ci Alaaji Seexu Mbàkke euh, Ousmane moomu nag maamam Alaaji Seexu Mbàkke wax nañ ne moom moo njëkk a ñëw fii ñoom ñi ngi bokk ci xabila gu ñu wax Aalu Mud Ndalla Ousmane wax nañ ne moo njëkk wax wolof langue wolof wax nañ ci Ousmane la tàmbalee ci ci askan wi ñu bokk Ousmane moo ñëwoon sanc fu ñuy wax Mbàkke Doode gannaaw ba la euh, Abibullah bàyyi maam Maram sanc Mbàkke sa ñànk foofee la maam Maram ganee jamono foofee fa la faatoo foofee fa ko rob maam Maram nag ba tey moom mu jur euh, maam Ahmadou Soxna Bousso mi nga xam ne mooy wëy maam Asta Waalo maam Asta Waalo moo fi indi Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi xeet li kaay mbindee fi maam nag euh, dañ ci ku ñuy ku jar a taxaw la ku mat taxaw la yàlla daf ko defoon mu nekkoon kilifa bu mag ndax euh, xëy na fay gu ko suñu borom fay ci la feeñal li lépp ba feeñal Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne nii. ku ne bëggoon na mu feeñ ci sa koron ku ne bëggoon na mu feeñ ci sa keppaar waaye nag maam maaram la ko suñu borom xéewale maam maaram moomu moo demaat jël jigéen di ñu wax soxna buso soxna buso doomi amaat buso la di jigéenu matabara mi nga xam ne mu jur sëñ ma buso awa mu jur sëñ Maamad buso mi fi indi soxna jaara kon maam Ahmadou Soxna Bousso ah, ah, Soxna Bousso moom nag moo jur Ahmadou Soxna Bousso ak Seer Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso moom moo jur maam Asta Waalo ak Tafsir Mbàkke Ndumbe Ahmadou Soxna Bousso moo jur maam Asta Waalo waaye moo jur Isa Diop mi fi indi maam Cerno Faati maam Ahmadou Soxna Bousso Jaara Bousso Mam jaara Bousso Bousso indi fi serigne maam Mor jaara siiw ci borom sam ak maam Abibullah ku fi teela bayiko la ak soxna Faati bakki moom niki non ku fi teela bayiko la bayiwu fi ak jabot ak cheikhna na Ahmad Bamba ci biir lool nak euh, maam Maharam mom Soana jëloon soxna suñu wax soxna Awa Ñang soxna Awa Ñang la soxna na domini la ndax maam abibulla jambar gum jam bëggoon lu baax ci le wóolurante won ak bërgël ma fenti ñang bërgël ma fenti ñang mayoon ko ab jigéenam bu tudd aram ñang di doomi atuman ñang aram ñang mom nak muju mamara mamara bi nak bu mu demee sa war a samp kër daa delluwaat kër di li fa soxna tudd awa ñang awa ñang mom mo fa taw taw la ko ñu wax soxna mbàkke awa ñang ak khadim mbàkke awa ñang ak asu mbàkke awa ñang khadim awa ñang mom ba wut surtout mbàkke awa ñang moju señ amadou amadou afé mag ma mu jur maam abdou kumban mi nga xam mom lañu lañ njëkkoon a dénk soxna aw buso mu tawlu mu amon fa señ afé ahmadou ñang mag mi ñu xam ginnaaw bi ñu indi ko ci keppaaru cheikh amadou bamba mu am fi cheikh amadou fadil soxna mbàkke awa ñang mom nak moo jur ñu wax khadi amar soxna jaxate ak ahmadou ngureel jaxate ak ibrahima jaxate ak afsa jaxate khadi amar amar soxna mom nak itam mu am mo amon soxna mo mo jur ku wax marema jaxate ak sayar jaxate ak maam Alassane jaxate ak maam Binta jaxate maam Binta jaxate mu jur soxna Mbacke Touré mu jur sëriñ Hadi Touré kon sëriñ bi gis nga ni mu demee sëriñ Hadi Touré foofu waaye ba tey xaari amar soxna moo jur maam Alassane jaxate mu jur xari Kumba mu jur soxna Binta jaxate muy woo juru sëriñ Muntaxa mi nga xamante ni moo fi nekk ci jataayu Cheikhul Khadim ñu di ko ñaar mu yàgg fi lool Ibrahima jaxate ma nga xamante ni nag mu euh, ama mu mu des kon Ibrahima Jaxate ak Ahmadou Ngourel ak Absatou Jaxate Ahmadou Ngourel tam ba tey moo jur soxna Faari Jaxate mii woo juru Serigne Cissé Touré mii bàyyi Serigne Adi Touré nga xam ne kon suñ xëri ci anamu ndeyam ak anamu baayam lépp génnut Serigne bi lépp mook ñoo ko bokkoon ba tey soxna Mbacke Awañang moom moo juraat ku ñu wax soxna Asta Jaxate Asta Jaxate mooma nag moo jur Xaadima Jaxate kala fóore ju mag ja nga daan dégg ak xujja Kumba Jaxate ak xari Jaxate xaarima jaxate kala moo jur sëñ Mor Saasum jaxate ak sañ Mbay jaxate xakim ba mag bam ak soxna may mën a jaxate mi xam ne dañ koo dénkoon sëñ Masamba mu am ci sëñ Modou May ak sëñ Abdou Baaxe soxna xëri jaxate moom moo demoon loo yéen am fa sëñ Ceerno Lo dem ak dem kër ñang am fa sëñ euh, Modou xëri Euh, mu des euh, kon noonu noonu la demee astu Mbàkke aw ñang wax naa leen mujj suñu Ahmadou Afiya mag ma mais xëy na ak ak ak astu moo mujj suñu Afiya Ahmadou ñang mu mag ma sëriñ Afiya ñang mujj suñu Abdou Kumbaan ak sëriñ bu Mbàkke Xafsa Njaay dooy maam maaram la maam maaram ñeenti doomi jigéen la ak juróom-ñetti doomi góor sëriñ bu Mbàkke Xafsa Njaay moom mujj Ahmadou Seck Ahmadou Seck mujj Abdul Xaadir mujj maam Abdul Xaadir Seck Amadou Seck la Serigne Mbacke Ndiaye am ak Mariama Seck Amadou Seck mu jur maam Abdoul Khadir Seck mii ni jaay Serigne Moussa kon Serigne Moussa moom itam foofu fi la euh, sëtoo ci maam Serigne Mbacke Xasan Ndiaye dégg mu ngi koy wax sax ci ay woyam yu bëree bëri bëri ñee juróom-ñett doom yi góor na góor yu am nag Amadou Farimata la ak Ceerno Farimata ak Amadou Soxna Bousso ak Sayar Soxna Bousso ak maam Abdou Soxna Mbay ak euh, Ahmadou Khary Diop ak Mame Balla Khaye tam ci caat bi ak Ibrahima Awañang mhm. Ahmadou Farimata nag wax na ni juróom ñaar fukki ak juróom la dund moom la bàyyam njëkk sancal fii di Mbàkke Bawol moo am fi 31 ans Ahmadou Soxna Bousso Ahmadou Farimata moom nag moom benn doom bu góor la fi bàyyi ak doom bu jigéen muy Mbàkke Ndaag la fi bàyyi ak Astu Mbàkke Mbàkke Ndaag moom Ibra Xujj la ñëw la fi bàyyi Ibra Xujj moom nag ay jigéen la fi bàyyi mooy maam yi sëñ Modou Lamine Saw mi nga xamante ni mooy maam yi sëñ Modou Lamine Saw mu nekkoon ci ak ñi sant Saw yu bari ak Ba muy seen maam Ceerno Farimata ma nga xamante ni moo ca topp nag te maam maaram tuddi woon ko ab sëriñam bu ñuy wax euh, Samba Thiam mi nga xam ne moom moo ko jàngaloon Ceerno Farimata moo moo jur fi nga xam ne foofu fi la bi ndaje ak maam Alhaaji Malick ndax Ceerno Farimata mooma moom moo jur ku ñu wax euh, Ahmadou Diosi ak Mati Diosi ak Xari Mbàkke ak Soxna Mbàkke Mati Diosi moom moo jur maam Ousmane si mi way jur maam Alhaaji Malick si ca Tiwaawan Mati Mbàkke moom Mati Diosi moom kam bokkaloon bàyyi muy Xari Mbàkke moom nañ yóbbu moo dellu Jolof ñangeen am fa ku ñu wax maam ñang maam ngañ maam ngañ xadi maam ngañ moomam moo jur Safiyatu ñang maam Safiyatu ñang mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Mansour si moom ak ma ak Alaaji Abdou ak Serigne Habib ak Alaaji Abdou Aziz ak soxna Nafisatu ak soxna Muxayri noonu kon noonu la Serigne Touba del dellu bokkee ak maam Alxaaji Malick Si waaye Serigne Touba nag suñu borom daf ko programmé mu nekk koo xamante ne nii képp ku baax ci réew mii nii wala taal boo fi séen ci àdduna ci réew mii muy doon taal boo xam ne ñoo ngi koy toppi Serigne Touba laal na ca. muy askan yi fi nekkoon yep nga xam mo fi jiitoon biñ xamagul bi mbacke ñew biñ xamagul mbacke mu indi li askan yi ya fi nekkoon ci démb tam nga xamul leen loon ci lan durut ak jangale ak dundé seenu ñak ak def lu bax ak ne ci kanamu njaboot gi di leen dimbulé di leen xeetali askan yo ci la Serigne Touba bokkon man nañ ci lim lu melni askanu ndam man nañ ci lu melni askanu kokki askan yi moy askan yi nga xamanteni ci la euh, Cheikh Ahmadou Bamba kharim rasoul bokkon ndax de da xam ne ku ñu wax daam mm, ku ñu wax daam gis nañ nga xarti moom lañ jox soxna ma ay dara mu am cee maam Amarum ndaam ak muxtaarum ndaam muxtaarum ndaam mooma ñu jox ku wax soxna Binta Fall mu am cee Demba Binta am ñu ko wax Demba Maxtaar Demba Maxtaar mooma mm, moo jur muxtaaru muxtaaru Demba muxtaaru Demba. ñu jox ko jigéen duñu wax soxna Seneba gay mu am ci njaay Seneba ak njugo Seneba ak mbërgu Seneba ak ali Seneba Seneba gay moy sen nday njaay sene njaay sene njaay mbërgu Seneba moma mu jur ñu wax ball mbërgu ball mbërgu juk ñu wax damburi samba damburi samba, juk ñu wax salilo salilo jur antakan antakan jur mambur anta sali muy wajuru borgu sfar ba Seneba mom kam mbokk la ak bàyyi muy njaay sene ba moo jur aram loo mi jur daramaan mi jur euh, njaay sene ba moo jur aram loo mi jur daramaan wele mi jur bàkkari wele mi jur maam fadd wele mi jur alxaaji marisi nga xam ne kon mook sëriñ bi dañoo bokk ci maam maara waaye bokkaate naam mooy li la wax rek seriñ bi moo dàmbi réew mi mbooleem askan bu baax wu ñu fiy tudd ci biir réew mi loxol sëñ baa ngi ci biir Allé ba mi nga xam ne moo bokkoon ak mbërgu Sénéba ak Njaay Sénéba Allé Sénéba moom mujj ku ñu wax yàlla xujja kumba ak faaloo xujja kumba ak siri xujja kumba ak maam ngañ xujja kumba ak kon ba tey mu jur yàlla xujja kumba yàlla xujja kumba mu jur aminte yàlla aminte yàlla jur xarimaam xarimaam jur soxna aminte mi Cheikh Ahmadou Bamba dëkk ko woon muy wujju Cheikh Modou Moustapha ak sëñ Mamadou Leen Baara ba tey daam yi sax mi nga xam ne wax naa ne la moo jur maam Moxtaar Ndaam ak Omarum Ndaam ñi nga xam ne ñi ëpp ci waa Ndaam ci la ñu sotoo daam yi sax moo jur Moxtaaru Ndaam Moxtaaru Ndaam jur Demba Maxtaar Demba Maxtaar jur mbërku Demba Demba mbërku jur Balla mbërku Balla mbërku jur Balla Ndaak Balla Ndaak jur Moxtaaru Naar mi ngi dégg daam yi sax moo jur Moxtaaru Ndaam Moxtaaru Ndaam jur Demba Maxtaar Demba Maxtaar jur Njuga Seneba Njuga Seneba jur Moxtaaru Njuga Moxtaaru Njuga jur Masamba Soxna Masamba Soxna jur Madun Awa Jama muy wéjjuru suñu daamu Abdourahmane Lo ak soxna Farimata kon sëriñ bi mboolem lu baax lu ñuy ci biir réew mi sëriñ bi loxo ma ngi biir kon sëriñ bi loxo ngi ca biir ba tey ni ki noonu maam Muxtaar Ndumbe Jóob mi nga xamante ni nii sëriñ Tuubaa seere na ci moom ay kàddu wax ne képp ku mu dajeel jamono mooy sab sang di sangub Kajoor sëriñ Muxtaar Ndumbe Jóob moom itam noonu yi la sëriñ bi demee moom ci ak bokk ci wàllu kokki sëriñ Moxtaar Demba Diop sëriñ bi def ci moom ay témoignage yu am solo wax ne xaarati yowma sabti rabia safar ama jaysasin min addaari allati banaytuha fi ardi jolof baadama atani baraawatun ami baraawatu amiri ndar alladi jara bayni wa baynahu ma jara min alqadri wa laqitu wasiirahu alladi jamaca jaysahu ila tilka addaari almabniyat للتعلم والتعليم وغضية ذلك اليوم في موضع يقال له جيول وتفارقنا بعيد لقائنا بإذن الله تعالى العليم وبت هنالك ليلة الأحد وارتحلت منه بعد صلاة الصبح وأنا يومئذ أدل القرآن وأصلي على من الصلاة عليه أجل ربي وقلت في القرية المزمت بكوك دار الشيخ المختار الذي كان في زمنه zaydi kulli man kaana fi ummati zaydi muxtaari fi ardillahi kajoor nga dégg seere su rëy su nga xamante ni nii sëriñ bi def na ko ci maam Muxtaar Ndumbe Jóob Muxtaar Ndumbe Jóob moomu nag ku ñu wax Sàmba Ayib moo ko jur Sàmba Ayib dafa amoon ak njaboot ku ñu wax Mareema Jóob la amoon ak Mët Ndumbe ak Muxtaar Ndumbe ak Kodde Penda Bindiw Njaay ak Balla Penda Bindiw Njaay Mareema Jóob mooy mbokkoon ak Muxtaar Ndumbe benn baay Mariama Diop moo ko jur ku ñu wax Anta Sall Anta la am ku ñu wax Fatma Saw ma Saw jur ku ñu wax Awa Dikke Kama Awa Dikke Kama jur soxna Daado Saw mii yaay yi soxna Ndumbe Ñang soxna Ndumbe Ñang moo indi maam astawaalo maam astawaalo mooy wajur maam jaar bu so mi wajur Seexul Xadiim kon sëriñ bi mooy ki nga xam ne moo yilif kokki waaye yilif ndaam yilif mbàkke kon sëriñ bi lépp lu baax loo fi dégg ci biir réew mi ab loxo ma ngi ci biir ci nak loolu nak ñu delu ci wat tuuti ci askanu mam maharam mam maharam waxam na ne juroom ñetti doomi goor la am mam maharam bi mu jotté ci bi ay mbir yu bare bare bare amé mu histoire bu gudd ba yalla dogal mu jot ci mbàkke affecté fi ab tawam ku ñu wax ahmadou faribar mbàkke ñukay don donnante ginnaaw maam ba ahmadou faribar jógee fi ibrahima awañang mom ko waxnal len ibrahima awañang mom na lu ma 30 ans Amadou Farimata moom na ko 31 ans ci li histoire siiwal bi Amadou Farimata wàccub liggéey Maaram wàccub liggéey Ibrahima Ñang wàccub liggéey Ahmadou Soxna wàcc na Sayor Soxna Bousso wàcc na mboolem doy Maam Mari wàcc nañ mu des Maam Balla Aysa mii caat bi te boobu Maam Balla ñëw fi waaye nag mooy caat bi waaye boobu ñëw fi booba wax nañ ne ma nga këram Masamba an Masamba Kumba Njaay Masamba Ant Kumba Njaay boobu ma nga këram di jàng ñu jëli ko xamal ko ne ko ñu jëli ko xamal ko ne ko fi sa suufu bàyyi la santanol bàyyi la yaa ko wara a tay mam tey maam bi nga xamanteni ni mi ba wara mom si fi mam ahmadou ye sunu mam di ma doomi Ibrahim awañang boobu mam ahmadou ye mi ak barke bu bari lool waye mam mbàll aysa nak bayama bim mu euh ay mbir yu bare bare bare am tax mambal aïssa waccu ci dëkk bi at moomu noonu nekk nekkul ci dëkk bi euh kilifteefu dëkk dëkk bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg téewagul ci loxoom ya ngi dégg sëriñ Moussa Ka aïssa Aysa sii dee ki Sadio si di toppante bokk nday bàyyi musu mosu ne kookante Aysa sii di moo jur Sa mojur mambal aïssa maam Balla di jur mambara Baara ma ci bo fil mambara Sadio di doomi ndayam mo ñu jël ko yóbbu ko foofu ci boofil foofu mu dëkk foofu noonu dëkkoo ko fa atum yàlla mu dëkk fa foofee la wuy juru maam Balla faatoo ñu rob ko fa mooy foofu ñu naan barabu Aysa ak Saajo maam Balla nawet fa am ba at ma jeex nag mag ñi waxtaan ak ma maam waxtaan ak maam Maaram dammeel dugal ci loxoom nag wax ak maam Balla Aysa ne ko na ñëw ñibbisi bi ñëwee foofu ci wet dimbi mu sanc fi ak daara nag di jàngale foofu ci xewar gi tudd am na fi faneri at ñaar fukki at ak juroom ñatt ginnaw bi nak ci fofu ci la fi lañu rayon maam Abdul khadir domam ja xamanteni ni dafa juboon lol ta bari won xam-xam bari won daraja lol naar yi ñu wax ni ay pël ko ray ñi ni ay naar bañ ko reyee nak ci la maam bala Aysa nak ne suuf suñu maam Abdul khadir mootu fi dekk ngir ñewante gum ko ñewante dari del nak ngay si bam del demee nak ngay ñaari at la fa am ay fek ko fa ko mu nekk askan woo ni ne dañoo yàgg ci dund diine waaye yàgg ci dund ak tumuranke ndax diine képp képp koo xamante ni mas ngaa jug di ko xeexal faw ay tolof-tolof jaar ci sa kanam faw boroom suñu borom jëral def ay natt ci loolu nag ci la suñu borom nag feeñal Cheikh Ahmad Bamba mii nii Cheikh Ahmad Bamba noonu nga toppee maam jaara buso itam noonu nga toppee wëkkat ak waajuram bu góor di soxna di di maam di maam Mor Anta Sali ni ki noonu waajuram bu jigéen itam noonu la noonu la demee muy soxna jaara buso moom it di mbokkum Sénégal gépp bokk ci askanu buso bi ak askanu Mbàkke ni comme ni ma la ko limalee léegi nii waaye soxna jaara buso nekk koo xamante ne ko mën a taxaw la ndax jigéen la joo xamante ne wax nañ ne fanweeri at ak yatt moom la am bi muy wàcc ab lëkk waaye xoolal li mu réalisé tey jii nii xoolal lii mu am tey jii adduna sépp di wan wala di ko fekk kon loolu dañuy xam ne jigéen du jàmbaar la wax nañ ne bi mu wàccee ci kër sëñ Mor Anta dafa wax ne ma moom jàng na lii nit ñi di faral di wax naan dafa ubbi alxuraan yem ci maakaana Muhammadin ne ab yonent dootu ñëw aaya ju ko wax déedéet soxna jaar yi ñu dem këram sëñ Mor Anta dañ na ci réer xam na ne ab yonent mënut a ci àddina dañ na ci réer xam na ko bu yàgg. bi muy dem la ne ab yonente moom mënut a am waaye ne dinaa fi jur loo xam ne fas naa fi yéene jur loo xam ne adduna sépp dinañ ko dégg te boobu ñi ne fukki at ak ñett la am ñi ne juróom-ñett waaye luñ ci mën a doon kon dañuy xam ne yitte ju kawe la ndax jamono ji dangay gis jigéen yoo xam ne ba juróom fukki wala ñeen fukki at jataay bu di wax turu gone yi du jàpp boppam mag soxna jaam nag fanweer ak ñett la am liggéey fi liggéey bu réy bii barkeel gi mu barkeel waaye dangay xam ne kon wuy juróom wu jigéen wi nga xam ne moom moo ko yar di soxna astawaalo kon moom kenn mënu ko ndax jigéen joo xamante ne bi yaa ko yar mu am fukki at ak ñett wala fukki at ak juróom-ñett lu mu ci a doon nga yóbbu ko ci kër ba nga ko yóbbu ci kër wattu na téere bi yàlla bind ko ay yooni yoon muy alxuraan mboolem téere bu ñu jàng ci xam-xam ne mën na koo jàngale mën a liggéey lu lu jigéen di liggéey yow mi ko yar kon eh, gàcce ngaa la wax amoo kon yow kenn xamul li nga doon kon soxna Asta Walo moom moo waral baboor bi wax nañ ne keroog xare maba bi maba saaye ndax dañ daan def bu xare masaanam boo demee ci xare ñu toog ñetti fan dégguñ ci yow dara say mbokk dañuy dajale dajaloo ñaanal la saraxal la ne wàcc na liggéey bi xare bi amee nag ñu dem ba mu yàgg ñu siiwal ne Maba saay na ñu bare ngawar gi yu baree bari ñu baree bari ñu wax ne saa dem nañ faatu nañ ñu siiwal ne sëñ Bousso bi wàcc na liggéey mi nga xam ne mooy càmm ñu soxna jaara ñu fi ñëw fekk maam asawaalo ci muy tëralal tëral tëral téere yi ñu ñëw fekk ko fi ci gàngu nañ mu toog ñu ne ko sëñ bu soobee de wàcc na bu liggéey faat dafa jug taxaw daane man juruma doom ju des xare juruma doom ju des xare loolu la daal di wax waaye da nga xam googu njàmbaar ak googu gëm yàlla ak boobu liggéey bu nangu liggéeyuñ barkeel ba tax mu mën a eng jël engagement bu mën a dog dog googu noonu fi mu ko waxee ci sens bi ñu soo rek lañ jekk jékki dégg fas wi nga xal sëñ bu soobee di di di dugg dëkk bi bi mu egsee bi mu simmee yére bi te tey nga gis maanaam bali di rot bali bali bali di rot yére yi mooy yére yi kong yooyu nga xam dañ ko naan sol di ko jiital nga xam ne bali du dugg bi mu ko simmee la nga gis bali rot kon soxna Asta Walo moom gàcce nga laama waaye Serigne Touba nag suñu borom def ko noo xamante ne nii ci àddina rek wuma ci wilaaya waaye jëmmi àddina rek jëmmi àddina calculi àddina rek cim xel rek maanaam moom mm, li mu fekkee ndax dañ wax naan jàng day tax am xam-xam day tax am expérience waaye tukki ak tumuraanke day tax am expérience bi mu ñëwee lii lépp mu am ko suñu borom waajal ko ci ay waataay ci wàllu askan nga xam ne amul fenn fu ñu ko mën a xebetee ci genn anam ci biir loolu nag Serigne Touba moom doy la loolu bi ñëwee dafa jël léppam wiisee kenn rek nag dar ko ne dam na topp ko ba am ci moom lii mu am ci moom nga xam kenn mësta am ci lii Sëñ Tuubaa am ci moom kenn mësu ko ci am te mooy yonent bi alayhi salaatu ko dam rek di xeeñ ci biir loolu nga gis Sëriñ Tuubaa mu raconter Sëriñ Tuubaa ay histoire yu yéeme ay histoire yu am solo yu may xam-xam histoire yu may expérience muy Serigne tubaa dafa nit dafa feeñ jamono rek wooy juróom wu jigéen wàññeeku soxna jaara dem suñ dara ne gimmi wooy juróom wu jigéen dem ñu jël ko jox ko maam tafsir Mbàkke Ndumbe mu di ko jàngal alxuraan ñu dem turi tafsir Mbàkke dem mu mel ne kon àddina mi ngi tàmbali wéet mu dese soxna Asawaalo ak sëñ Mor Anta ko mel ne moom dong soxna aswaal dem maam abibullah mi xam moo nekkoon rakam topon ci mom tel na dem mom ci ndaw serigne bi amul jigen bu mbokal nday ak bay bo xane man na di wax ak yow sonu fati moy dem na kon bu melni nak tambul na wet waye yalla bu lu bëggee programme lepp luy tax nga xam li lii nga wéeru ci mom ba tax mu defal la lii borom day effacé lola ba xamal ne la manam man rek la lii ci man rek la jóge coobare yalla nag suñ tubaab li yoron mom do doonut lu mu ci kenn coobare suñu borom tabaraka taala la yoo xam ne yàllaa ko def moom dafa daan wax ne lii fi nekk ak bokk taxu cee jot njureel taxu cee jot jarbaat taxu cee jot rakk taxu cee jot alali suñu bant waru ko temps la yor li ciy tax a jot mooy diglu ndigal di bàyyi ay tere jaayante luy jaay la ku am njëg nag mu jaay la dëgg la naam bokk ak moom baax na lool waaye li ciy jariñee du sëriñ bi ci laa bokk li ci jariñu moy lan moy jikko ju rafet ja xamanteni ni ci la sun borom tan ci la sun borom tagge won yoni bi alayhi salatu ndax bi kan neena nit ku ne lam ne rek la bok ak mom kon kep ko xani yaangi askano ngi bi di def ab safa itam di askano ci mom mo xam ci walu pas-pas la wala ci walu anam goma meuna askano ci mom na nga xam ne la ngay def bu de lu bax la yak sëriñ bi nga ko jëlee bu dee ab safaan nag sa mbirum boppam la moo xam ne yaa ko jagoo ci biir loolu sëriñ bi nga gis kon tumuraanke gu mu teel a dund xale Samba Sadio fekk ko fi Maba Jaxu Lat Joor yooyu yëpp fekk fi sëriñ bi mu xam la ca àddina am ak la ca yàlla am histoire yooyu doontoon ton xam ne sëriñ bi da ko doon bàyyi noonu rek muy naax saay muy jàll non non da ci doon tirer leçon xam na la ci xam la ci yàlla am xam la ci àddina am mu tel koo jug na teel càtteeku tàngam teel a wan gannaaw àddina dañuy nettali ne sëriñ bi bi nga xamante ni mi ngi toll ci ndaw ñu toll ci ñi nga xam ne fu mu jëm dañ ko fay yóbbu dañ koy fob wala soxna si di ko nga xam ne fu mu jëm dañ koy fob di ko boot ak yu mel noonu buñ mësaan saana jaar ci mbedd mo xamanteni ni dafa sobe wu wala fo xamanteni ni ay moykat yàlla ñoo fa nekk wala fu ñu dajaloo di caaxaanaka euh, tëxuraanaka def yoy nga xam mo xewante yoy jamono bu fu jam di def ay sert yo xam da nga xam manam ki am nan lu ko mettle da ngay depart nga xam dañuy dem ba ñoom ñuko yoron yoroon dañoo mujj comprendre ko ci loolu nga xam bëpp mbedd lu mel duñ fa jaar soxna ci da ko daan daan dajale njaboot gi nan leen gaay yi baax yi di ñu njëkk ña dañ daan tok di fanaanee guddi di jaamu yàlla bi mu déggee loolu te moom donte dalagul alxuraan sax waaye dégg na ne gars yi baax ne daan taxaw guddi rek bu guddi jot day jug di dem taxaw ci ëtt bi di fanaane taxaw ba bët set te booba dalagul alxuraan nga xam ñoom nit ñi dañoo mujjoon di ko ber jort ne koo xamee ne dafa am ak dese waaye bi mu tàmbalee jàng alxuraan nag ñu gis ne njàng mi gaaw lool baax lool ni muy jàngi bokkut ak ay moroom ni muy jànge ñu xam ne que nit ku dese moom day def jëfi ku dese waaye kii ne li muy def di jëfiku de ci kon am na la suñu borom wàcce ci moom waaye sëriñ Tuubaa suñu borom defal ko nag tawféexi mboole mbokkam yiinu yiinu yiinu yiin doon tudd yàlla da ko defal mosu ko defal kenn bi mu wootee wootee mbure bii nii ay bokkam ñu njëkk a ñëw jaayante ak moom àndante ak moom maam Seex Anta ngi fi bokk ak moom soxna suñ Mor Anta Sali maam Seex Ibra Faati ngi fi sëñ Mandumbe Mbàkke ngi fi nga xamante ni sëriñ Ndumbe bi ma defee ca taxaw lim ko muritu kenn ku ko mën a mos a muritu sëriñ bi ci askanu amul ak weneen askan wu mën a doon wu mën a doon nag biir réew mi li sëriñ ma Ndumbe muritu sëriñ bi li at yi mu am ci sëriñ bi kenn mosu ko jaam ñu mos a tekki la koo xamante ni maanaam bi yàlla dogalee ci moom lii mu dogal aw askanam ñu njëkk nangu dogalub yàlla ci moom mooy li sëriñ Ka naan askanu mamaaram Seex Bamba mooy diggal ba nuy raas waye mom itam ci bir askanu serigne bi lu ma mas don ci nit da ko dan ndamoo lu ma mas don ci nit da ko dan puukar wet jamono bu ci ay bu dan bind serigne Mor Jaara gis nga leetar yu bari yum ko bind daf dan wax sama magi sama sama sama magi bop ju bokal bokkal ak baay di bind serigne ibrahim Mbacke kadior sama sama sama sama baay tëx sëriñ bu soy mu ko bind sama nijaay nga xam sañ ku mel nga xam sëñ bi ni mbokk wan bokkami ku mel ne sëñ mbàkke jor nga xam ñeen doomu jigéen la ko yàlla dénk ak ay doomu góor mboolem ñeen doomu jigéen yi yëpp sëriñ tubaa rek leen dëkkoo donte nag fekkeen du ñu waaye sëriñ tubaa rek leen dëkkoo ñoom doom ju jigéen du masam ko kon nit la ko bi ko suñu ma defalee lim ko defal tam nag fàttiwut aw askanam fàttiwut askanam askan yi xamante ni moom moo ko ci la bokk du askanu kokki du askanu ndaam du askanu mbàkke di ñaan yàlla suñu borom itam nag di ko ñaan ne ko wajaal jamia ixwati yi a nasabi fii rahmatin yama si dajji nasabi nga dégg ñaan yooyu nga xam ñaanal na ko ay mbokkam waaye ñaanal ko it askanam fañ soqi ko ba fii mu waxee yow te bisu tartar bisub raj raj wax ñëpp tiit nañ fa ñëpp di ko bàyyi xel muy mu leen di ñaanal te bis boobu jox suñu boobu defal leen tawfiq bisub raj raj la boobu noonu kon fàttiwut aw askanam moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul boo xoolee këram itam ni ay waa këram ñu demee ñëpp daanaka mën naa ñu la digg di génn dig digal bi ma la wax nii koo ci topp rek dina dem dellu ci ndaam baam mbàkke baa kokki baa mbaakol baa feneen kon sëriñ bi noonu la ko suñu borom waajale ci biir loolu nag askanu mbàkke teel a doon nit ñoo xamante ne dañoo bàyyi woon xel sëriñ Tuubaa ndax li koy xamee mooy Mbàkke dañ koo bàyyi woon mu nekk dëkk boo xam ne ku mag yaa ko yilif wax naa ne Ahmadu Farimata Tooy maam moo ko njëkk yilif ginnaaw bu mu fi jógee Ibrahima Awaña moo ko yilif ginnaaw bu mu Maam mi moo ko yilif ginnaaw bu mu fi jógee moo ko yilifaat moom mooy ginnaaw Maam Balla Xaysa Ahmadu ji moo ko yilif daf ko yilif ñaari at kan la fi tok tafsir ma ba wote jihad salum mag ñëpp wuyu ko mbacke dal gënd ad at ñu def ci salum bi mbacke gënd nak ahmad dam seyna bu mooy ki nga xam muy wéjju wéjjur sa jibra mo moo njëkk départ salum ñëw nak dekkal ci mbacke ndax da ngay faté né samb seyna bu mi ko jur ahmad dam seyna bu seyna bu jee mi ko jur doomi jee siisal ak ibrahim oñang mi doy mam waye bayam itam modou du ko modou du bayam moo di jël si doomi Cerno Fari doomi Maram muy bette bette Mbàkke li mu am ci Mbàkke booba kenn koo ci ëppale amu ko ci te bokk ci màngi nag bokk ci kilifa yi ñëw dekkal si Mbàkke moom it ñaari at ñeent la fi am wàccub liggéey Masamba Seyni bu daal di koy wuutu nag daal di dëkk bi bi koy sanci dañ naan def ab dëkk boo ko sancee da nga koy toxal tuuti daal di fi ñu dëkkoon nga def ko gent daal di bay gent ba ndax dañ naan nit boo ko yilifut doo ko boo ko ëpp lu doo ko mën a yilif te ku bay gent yaay ëpp ëppale Amadou bu bu fekkee da ngay bayub gent it dangay ngay woowaa dëkk bi ñii dimbale la sayu xat ñii dimbale la say gittax ñii dimbale la sayu leneen ñii dimbale la sayu ñii dimbale la ci leneen waaye bi ñuy sanc bi ñu bi ñu bi ñu wootee bay sancaat dëkk bi fekk sëriñ bi boobu jugee na waajuram mi fi door jugee mu jugee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol Masamba Sëy na bu fekkoon mu toog mu ne ko sëriñ mu ne ko naam mu ne ko sëriñ dëkk bii de dañ koy sanc bëgg na nga ñaan ci yow nag sasewuñ la ci say xat sasewuñ la ci say gi tax liñ la ci ñaan moy nga ñaan ci liñ la ci sakku moy nga ñaan ci mu barké ta baña ngeen tati sëriñ bi ne ko naam fas yalla dari ci bind ñaari xasaa yi doon yooyu nan alhamdulillahi ladi arsala alhamdulillahi ladi qad fadala ne gi nañ ko fi jang suba gi nañ ko fi jangon kon sëriñ tuba lim ñaanon ci mbacké yagam yagam ni bëgg mbacké mel dina ni mel kon Mm, da ngay xam ne kon waa Mbàkke teel nañ ko bàyyi xel ndax boobu woote bi demee gun nii waaye Serigne Touba itam ci biir loolu ni bokk woon bokk yi bi mu jugee Mbàkke bool sanc Daaru Salaam ne fa ndiir ne fa jiis sanc dañ naan wax ne képp koo xamante da ngaa am lu yees mun ma fa jiitoon sam jaam nga ko jox da xam ne soxna Anta Ndiaye Mbàkke Ibrahima Awa Ñang moo ko jur Ibrahima Awa Ñang maam Maara ma ko jur kon soxna Anta Mbàkke bàjjeeni Cheikh Ahmad Bamba la ci ak bokk sëriñ bi kere bi sama jëlee amee amee jëlee Touba Darou Salaam mam maara mam euh, Cheikh Anta la ko daaj rafaatale muy sagari jaamam kon kon lim ñi jamono bu ne daf ko daan jël di ko bàyyi xel nga gis seere su rëy suus mu bind ci maamam jooju di moxtaaro ndumbe kon sëriñ bi nit koo xamee jëmm la joo xamante ne nii Euh, li nit ñi war a gën a bàyyi xel ci moom mooy ak nite ak nite mooy li nit ñi war a gën a gën a gën a gën a bàyyi xel ci moom buñ ko jàppee rek Cheikh Ahmadou Bamba borom ak wilaaya li mu def kenn mënu ko mën nga ci jariñ na am jariñu na xam waaye am na nag ay yoon yoo xam ne nga cee gën a jariñu nag ci boo xoolee sëriñ bi ni mu daan jëflante nit ñi jëflante bu rafet yi jikko yu rafet yi makkaayu axlaax ci ndax dañuy def ne tey bu ñu waxtaanee menn mag wax ci moom juróom ñaari jikko nga jël ci moom ñett waxtaane keneen nga jël ci moom ñaar bu yàggee boo nuru ne mag ne itam ci ay at dinañ la yéegal ci ñoom ngir sa yitte ju kawe sëriñ bi nga gis kon son as maam jaar ba soo ko jur maam jaar bu so maam astawaalo maam astawaalo moom maam ab satu ab ab satu mbàkke mii wuy jur soxna faati isa jóob mii wuy jur maam coono idu faati ñoo bokk benn baay maam moor ànd sali itam bi mu tollee ci sambu kër dafa am ci histoire koo xamante ni dañ koy faral di nettali kuñ ko waroon a jox soxna Anta Ndiaye Mbacke la woowoon ne ko moom moo koy wàcce mooy njëkk li ñu dem ba ca bis ba loolu am gàllankoor mag ñëpp jaaxle mag yi mbàkk yëpp dajaloo ne sëñ Mor daal yar bi ak xam bi ak njub gi ak yaakaaram ji nga xam ne daal nar naa daal lii ci pexe soxna Anta Ndiaye dégg loolu mag ñi di ko wax ci pero sàkket yi mu ñëw ne jiif ne man de lii daal dama ci am xalaat mu ne leen ne kër sëñ Mor sëñ Mor bi mu ne ma ne lu a xew mooy jigéen mënu fee ñàkk wàcc tey ak nu mën a amee nag maa ngi ne ah xoolante mu ne ndax man dama ko dëgganut ñu ne ko ah kay seen ñaari baay bokk benn baay mu ne kon nañ ma muur ma dugg dugg fi ndax mënu kenn mënu fee ñàkk dugg kon kooku loolu waaye mën wax mooy li mu am da koo lëkkee da koo ñàkk nii la duggee ci kër gi waaye gis nga la mu fa am tey koo ci di xool mu dib jant boo xam ne mën na sëkk waa jamono muy sëñ Mbàkke Anta moom taaw la woon nga xam ne moo njëkk a denc soxna Jeeture mi nga xam ne doy fàtti Balla Soxraa la moom maam Balla sax bi ñuy waaj a wàccu liggéey la la def euh, la bind wax la wax ne bu fi bàyyi ko daal bëggoon na bu sañoon ni joxal ko ko Xaadimu Rasuul mii si si xamul Bamba ndax gis na ci moom loo xam ne daal bu sañoon am euh, wax tegtalem ci jo li mu fi jigéen ñi jox ko sëriñ bi mu taaw am fa soxna Fadja. ginnaaw bi la ko sëriñ bi lañ ko jox soxna sëriñ bi jox ko soxna sëñ Mbàkke mu am fa sëñ Abdou Xaadir Dia siiw ci sëñ Abdou Jaddu Yoli ak sëñ Ibra Dia ak soxna Busa Dia muy wajur sëñ Modou Seexu kon noonu yi sëriñ la la la la la jëf jooju la soxna Anta Ndiaye Mbàkke jëf ba noppi nag njaboot soxna Anta Ndiaye Mbàkke ni ñu sëmbartaloo ci sëriñ bi jox ko seen bopp lañ bokk ñoom xooluñ ca dara li ñu xool ci sëñ mooy lan mooy ak bi ndax sëriñ bi ak bi rek ci lañ ci jariñoo waaye kenn ëpp lu leen ci itam nag euh, bi moom noonu rek la demee buñ doon waxtaanee ak moom daal li bokk ak réew mi fii ba suba duñ fi jóg ndax képp ku baax koo yëkkati biir réew mi rek la nga baax leen lépp yàgg sañ Tuubaa ku bokk. kep ku dig bi ci rew ñene dafa bax ñukoy tag ci mbax wala ñukoy tag ci daraja lam bax lepp mo ko amul Ahmadou Bamba ko bokk lam bax la bu ci sëriñ bi jugge jele jël loxam dara de seru ci lol yi nar ganan bo xone wa ma min al bamba ahmad wa misluhu fil gharbi laysa yujadu amul ahmadu bamba amul ci sow amul ci penk waye amul ci saluma ganar itam nak kon dal fofu yakana ne mënees na fee taxawlu ba yeneen jamono euh, ndax euh, day loo xamante ne nii euh, xëy na lu ñu waajalul la ci mu ñëw ci ang mu ñëw ci ang mbetteel xëy na bu yeneen jamono ñëwee rek dina gën a mën a yaatu ba lañ ci bëgg a wax lépp waaye lañ ci lañ soxla woo lépp ci ay leer lañ ko kon daal lépp luy lu jub nañ xam ne ci sumaan suñu borom tabaaraka la lépp lu ci dëng ci aji wax ci rek la kon bi eh, bokk ñu ngi ñaan suñu borom doon defal tawfeex ak sutura wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu